mbokk jullit yi mbokk talibe yi ci ndigalu seriñ Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Mame Mor Mbacké xalifa Serigne Massamba Mbacké ci kilifteefu Serigne Fallou Mbacké xalifa Serigne Modou Fati Khary Mbacké jabootuk Serigne Modou Fati Khary Mbacké ñoo am mbégte ak tawfeex di fàttali di yëgle ak di woote laylatul xadar bi ñuy amal at mu nekk ca Daaru Karim di bés bu Serigne Modou Fati xari Mbacké daan màggal ba nii mu wàcce liggéey Serigne Cheikh Mbacké Modou Fati Khary daan ko màggal ba nii mu fi jógee Serigne Fallou Mbacké Modou Faty Khary wuutu ko di taxawu bés bi di ko dundal ren ñu di ko amal alxemes ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru koor gi dëppoog ñeenti fan ci weeru avril 2024 ci daaru Karim bés bi di tombeek ñaanuk Serigne Cheikh moo du Faty xari ñu ko ji fàttali koo ko ñaanal conférence su set yi ñuy amal at mu nekk di ko waajale bésub laylatul xadar bi dinañ ko amal ñaari fan ci weeru avril 2024 di ko dalee 22h ren ñu tuddee ko Serigne Abdou Khaber Mbacke rahmatullahi alayhi di caatu Serigne Massamba Mbacke conférencier ba Serigne Moustapha Diop Ndar muy programme laylatul xadar ca Daaru Karim alxames ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru koor gi dëppoog ñeenti fan ci weeru avril ñu di ko yëgal njabootug sëñ Touba gépp mbooleem njabootug Serigne Massamba Mbacke gi rawatuna njabootug Serigne Modou Fati Xari Mbacke gi daayira ak fédération yi aju ci kër gi bokk talibe ci biir réew ak bitim réew mbooleem jullit yi këru diine ak mbooleem autorité ñuy ñaan kuréelu xasida daara alquran yi jumaa ñu def ko addiye borom Touba ak Serigne Massamba Mbacke ak Serigne Modou Faty Khary Mbacke ak Serigne Cheikh Modou Faty Khary Mbacke bés ba ngoog laylatul xadar ci Daaru Karim alxemes ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru koor gi dëppoog ñeenti fan ci weeru avril 2024 assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu